mooy yoon Karouna bi. lii ñu ngi waaj a def ak ñu ko semaine semaine de la Louga bi. ah. jërë jëf mbokk yi ñoo ko gisadoo noonu muy waa Pastef li xamante ne si rek ña ngi koy def mu doon semaine de libération nga xamante ne si rek ña ngi koy commencé di ko amal ñu gis fa nag ñi nga xamante ne si ne ku kër di Seex Coro ak yeneen rek membre yoo xamante ne si ne rek yob tayif ñoo ñi nga xamante ne si ne bokk rek foofee rek sa waa Pastef muy mel na rek ñoom na ngay commencé rek li nga xamante ne si ne daal koy doore foofee sa Ziguinchor mel na rek waa Pastef ba tey wala sax rek fi que ña ngay rek amal li nga xamante ne si ne rek moo di seen semaine de libération xamante ne si ne daal di nas kay rek foofee nga xam ne moo di sa sigeen euh, soor mbiram Ousmane Sonko saa su ne day nekk si kasa bi waaye nag leen ci nemmeeku dafay wéy di continuer ndax rek saa su ne ñu gis rek ay actes yoo xamante si ne ñu ay farandoom ay participants militants ñu ngi koy amal bu baax a baax jëmlu rek sa liggéey ba lépp rek pour rek waajal li nga xamante ne si ne rek moo di élection ñu dëngal 2024 mu doon ñooñu nga xamante ne si ne ay ex Pastef lan bokk si Pastef mu doon le du Sénégal xamante ne si ne Ousmane sonk rek lañ gëm te Ousmane Sonko rek lañ nemmeekoo maintenant rek nemmeeku nañ sa sax ki xam ne moo di Guy Marius Sagna ak ñeneen i leader yoo xamante ne si ne ña nga sa ñooñee xamante ne si ne moom la ñuy amal semaine de libération.